soobuhaat soo ko defee nga xam te ràññee looy dowaat maj soppi looy muñ muñ lu gaaw a soobuhaat soo ko defee nga xam te ràññee dowaat dellu ca jàkk ja fabal kurus gi doxal ba xamme piyi ràññeel mbokk gi gan ci loo war a sàkku xam sa borom soo ko xamee saxal ci buntam du morom yow saa xarit saxoo xal yi ma lay tuddal saxoo sikar saraxe mooy li lay kaweel bul taayi bul fàtte bul di xaajale mbindee fi yëpp ta bul di seenaleng yow yàlla mooy ki teral te mooy ki lay ci àdduna àllaaxira moo leen gënal téléphone yaak duñ fa jeex kenn dootu fa lekk new ngir ñam yaa tariqatu barahama doy nañu digee mayam yu rëy yu doy nañu digee jam-jaamu leen seen borom kii moo def wur mat borom dugul morom te borom ku dul morom te borom bi ko morom moo mat borom yàlla xabibu suñ borom moo ñu amal moo ñu xamal moo ñu defal moo ñu gënal kañ jaamu kii mooy suñ borom rabbul bariyatoo fi ne mooy buuri buuri mooy borom yow sa xarit yëkkal ci ci bi mooy bunta gorom sëriñ bi mooy bunta gorom sëriñ bi mooy bunta gorom সম্পর্কে ব্যাংকিতে saxal ci buntam suñ boroma kon nag sëriñ bi loxo bakkan bi ñoo doon xuloo ma gaaw di xatte naan leena ba leen xuloo ba leen mero nañ gaaw a toog bakkan bi maa ngi lay digal yow sa xarit déggal ndigal ban ñox bi mooy li lay wàññi yoonu jëm ci sa borom yow sa bakkan royo roxo royo roxo royo roxo royo roxo royo roxo royo roxo royo roxo ci yoonu jëm ci sa borom may dolli sa bakkan di royo wattul ma nay ak tayal rëy ak kañaan day xañee wattul ma yéegi sa borom soo defee lii da nga texe da nga naxe da naxe da nga rawe muñal ba am li nga ci yàlla gën ci borom alhamdulillahi sil xidam man ki xamut te xam may jóg de kañ ka gën xam barhama ñas yow yaay ngelam sopp bi maa ngi sakku ñaan buri nga yàlla dàqal ko ka ñaan jullil ma ci taha rasul wa alihi sawel xolooma wa sahbi ummul butool fi kulli ma xelmel kamul barhama ñas yow yaay ngalam barhama ñas yow yaay baay yow yaay ngalam tabekki niiram ak ci baay sa kàddu néew ba mel baay yow yaay ngalam yow bàyyi fu mu juddoo tey bañ a fu mu juddoo tey ca baayam ku ko jàngal baayam la moom kon tey ba yaa dem nga mal xamis sa takkusaan fukk ak juróom sahrun manaama mu dib rajab waxay bu naan waxal ñu xaw su fay fanaan atum juróom gannaaw gadaay ak ñetti أكبرها ما يسعى بلا درع ولا لبس باي قرن بأبدل بيو يا قطس باي نس برحام يا دعوس نس موتاخ الحاج محمد زينب ليكو ألا يا دعاة الوقت فتترك دعوة wa umu ila barhama haadil bariyati kon nag dikk leen dikk leen wa umu ila xubbi zamani wa qawsihi wa waarisi suri shayqi awwala wahdatin wa umu wujudi bi asri wa ummu ila asrari kullal haqiqatin wa ummu ila zati tijani wa kulli wa ayni rasulillahi afdali millatin